mbay basa mbay ñor xom mu nanga ni cas mbay mépp sànk ci àllum nee na bon bu ko def asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñu ngi leen nuyu te leen siyaara bu baax a baax seen mbokk la xaadim bàmbaloo borom cabine médical borom daam bu ko mbokk yi ci vidéo yi nga xam ne dañ leen koy defal rek semaine bu jot tey jàngoro ji nga xam ne moom lañu bëgg a waxtaan ak yéen mooy jàngoro ji hémorroïde mu doon jàngoro joo xamante ne bii bu sanal doomu aadama yi la lool lool lool ñu baree bari rek maanaam jàngoro jooju moom lañuy jàmbat mu doon jàngoro joo xam ne nag bari na ay signes yi muy feeñoo bokk na ci yi ci gën a siiw rek mooy koo xamante ne bu lekkee du gaaw a rees koo xamante ne bii biiram day faral di am ngelaw wala koo xamante ni buy dem buy dem day metti lool wala su mu àgg ci di génnee deret am na ci ñoo xamante ne bii nag day dem ba te seen digg seen digg di metti am ñoo xam ne dañuy dem ba maanaam dootuñ doonati góor nga xam ne seen wàllu euh, maanaam ngóora ba dootuñ doonati góor am ci ñoo xam ne dañuy dem ba seen biir day dem ba dootuñ xiifati nga xam ne saa bu lekkee rek maanaam bala ñoo mën a lekkaat day yàgg lool ndax ñàkk a reesu lekk gi mu doon jàngoro ju doy doy waar joo xamante ne bii nag daanaka fukki nit ñoo de ñoo seen ñuy dem fi mu toll nii rek boo dee xool ñeent ña am nañ ko ñi gën a yem itam mooy ñi nga xamante ne bii dañuy faral di toog mooy lu mel ne sëriñ daara yi wala lu mel ne chauffeur si wala lu mel ne tailleur yi ñooñu la gën a yab ñi nga xam ne daal seen liggéey toog moo ci ëpp wala ñi nekk ci bureau yi di toog kon jàngoro la joo xamante ne bii maanaam ju mat di waxtaane la ju mat di euh, maanaam utal solution la itam bu ko defee nag ñun euh, maanaam jàngoro jooju saafara suñ ciy joxe rek nga xam ne comme daal mën nga ci mën nga koo tàmbalee mooy képp koo xamante ne bii gis nga ne loolu dal na la na nga fas yéene maanaam yokk sa naanum ndox fas yéene maanaam di naan ndox bu baree bare bokk na ci nga xam ne baax na ci lool waaye ñaari sunguf a ngi nii tam yoo xamante ne bii baax nañ ci lool muy lu mel ne sungufu njàndam ak lu mel ne sungufu fuuf ñoom ñaar boo ko amee nañ tolloo rek na nga leen natt bañ tolloo ñoom ñaar boo ci amee bii gën waa libar amal ci bii gën waa libar nga boole leen ñoom ñaar ba ñu ànd bu ko defee nga di ko jël ku dugg ndaw saa boo xëyee nga natt ci ku dugg ndaw def ko ci euh, kaasu ndox nga tàngal ndox ba mu tàng nga sotti ko ci bàyyi ko ba mu teey nga naan ndox mi fekk na nag lekk nga ba pare bu ko defee su ngoonee tam bala ngaa tëdd nga defaat ko képp koo xam ne def nga def yaa ngi ciy jëfandikoo noonu incha allah di nga ci am tawféex bu baax a baax am na ñoo xam ne nag moom jàngoro ji day génn ci seen suuf nga xam ne day dem ba day génn suuf gi mel ne lu bittër ñi ko nga xam ne léeg day génn dugaat léeg-léeg mu génn dugaat bu mu jëlee mu génn rek nekk fa nag ñooñu mooy ñi nga xamante ni dañuy dem ba war leen a opéré waaye yooyu yëpp itam bu dee ci médecine traditionnelle am na ay solution mën ko faj ba mu wér kon képp koo xamante ni bi dal na ko daal loolu moo wax noonu na ci eh, na na na na na ko njëkkee ba noppi bu fekkente ne bii nag dafa génn ci suuf na wut ñetti doomi soble yu mag wut qualité bu ko defee mu ruyal qualité gi fekk dëbb na soble si ba noppi mu jël ko def ko ci bati ko ba mu ànd bu ko defee saa bu xëyee mu lekk ci génn kuddu su ngoonee mu lekk ci geneen kuddu buy tëdd itam mu diw ci fa nga xamante ne bii éméride bi fa nga xamante ne moom moo génn waaw euh, solution boobu daal lañ ciy joxe incha allah bu ko defee li ci teg mooy di leen baaxa baaxe di leen xamaleeg suñu garab gi nga xamante ne bii moom lañ tuddee daj dëpp yaakaar naa suñu vidéo yëpp mu ngi ci daj dëpp garabu ngooro la goo xamante ne bii ku néew kattan ci wàllu sëy rek moo ko tax a jóg képp koo xamante ne yëg nga ne da ngaa néew kattan ci maanaam ñu ngi lay ñaan nga essayé suñu garab gi képp koo xam ne essayé nga ko ci rek maanaam dootoo ko bàyyi ndax dafa lay faj ba nga delluwaat gone ba nga delluwaat da nga meloon wala koo xamante ni bi tam maanaam dafa gaaw a yegg mooy koo xam ne éjaculation précoce da daal ñun ñëpp rek incha allahu kum ci daal rek bu soobee yàlla boo nu woowee incha allahu dinañ la wax fi ngay jaar ba ñëw ci ñun bu defee ñu yox la garab yi incha allahu da nga ci am solution. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñu ngi ziar ñëpp. bay basa mbay ñor xom mu nangani cas mbay mépp sànk ci àllum nee bon bu ko def